jiw yi li ma ci waxoon euh, tout à laa ci moom laa ci baamtuwaat euh, wax ne euh, dañu nekk ci li ñuy wax chaîne de valeur maanaam ñi nga xam ne bii acteurs yëpp yoo xam ne ñoo bokk ci agriculture ñun ñu féete ci wàllu jiw te jiw ku nekk xam ne am réew bu demee ba amatul jiw daanaka mbay ma day daal di egg suuf donc mu nekk loo xam ne lii donc ni ko acteurs yi nga xam ne bi ñoo ci yënguti war a aare ñi la ko acteurs yëpp war a aare ndax jiw mooy tax baykat bi mën a bay am lu mu jaay mooy tax ba kii transformé moom it mën a am lu mu transformé waaye mooy tax kii exporté aussi mën a am lu mu exporté ba tax na ñun ñëpp war nañu ràññee ni jiw yi ak lu mën a xew lu xëccoo bi di euh, tar tar tar war nañu fexe ba ñun ñëpp ku nekk jël sa bët teg ko ci jiw yi nga xam ne bi jiw yi euh, kenn du ko transformé jiw yi kenn du ko exporté jiw yi man fee des béykat yi campagne bële di ñëw ñu mën a am en tout cas stock boo xam ne bi dina mucc ayib ci walu quantité waye mucc ayib aussi ci walu c'est vrai que le Sénégal réewu teranga la mais li nga xamné permettre nañ ko étranger yi def ci réew mi dafa jéggi dayo ay chinois di wacc ba ci les coins les plus reculés ñew bu nit ñi arrêté au niveau de l'interprofession ne njëg bi li la nii la nii lañ na a bu ko défé ñom comme ils n'ont pas investi dans la production donc yomb na len lool bu ñëwee ñu désarticuler le marché yokul 1 franc wala 2 francs loolu nak nit ñi dañ ci wara yewu yeewu ndaxte effectivement dafa nek une chaîne bo xamné ne dafa wara nek une chaîne organisée industrielle yi ay doomu sénégalais lañuy ñuy on en a besoin donc tout cela doit être assaini mais yaakaar nañ ci biir atelier bi loolu dañ ko waxtané ba trouver ay solution am nak euh, sante yalla bu wara def dolli ci santaat sun borom bi nga xamné ne bu ñuy wax campagne commercialisation dafa fekk nawet am yalla may nañu nak ndox mo xamné fa tabaarakallaahu ren bi gouvernement bi jëlee disposition yi yaakaar nañu dañu am ren jii. wax dëgg yàlla gerte gu am solo goo xam ne gi lañ doon yaakaar ci campagne danañ ko ci am ah ñuy gërëm ministre bi itam ndax bi président joxañee na ngeen daje ngeen waxtaan balaa yëf yee egsi mu def ko tey jii def na ko ci jamono bi mu ko war a def te boo ko seetloo nag képp ku ci war a bokk rek boole dañ la ci kon xalaat yi buñ ko xellee yaakaar naa ne dañ jëriñ ñëpp ñun waa comité de suivi nag dañoo jàpp ne campagne dañ koy waajal li ñuy ñorle mu bëri mu néew suñ ko waajalul rek. day am ku jekk am ku jekkati te buñ bëggee nag ñi nga xam ne ñooy toppatoo jiw yi ñi nga xam ne ñooy yore usines yi ñi nga xam ne ñooy transformé ñi nga xam ne dañ koy génn bitim réew kenn ku nekk gis ca sa bopp dañ koy waajal waajal ba njëkk nag mooy xaalis am ndax campagne ba mu ko koy wax faw xaalis génn te ñuy jógee bitim réew wala ñuy génne gerte gi nag ñoom dañuy waajal seen bopp ba xaalis bi ne na fi suñu waajalut kon ñeneen ñi ci des ñoom dañuy dal di mën a jëlandoo lépp yóbbu ko su boobaa day am ay jafe kon ci biir loolu nii ko ministre bi defee tey jàpp naa ne dinañ def ay sous commission yoo xam ne xalaat yi dana génn ba kenn ku ci nekk fa ñu yaakaar ne bu ñu la fa jàppalee da nga taxaw da war a taxawee su boobaay lépp nekk jàmm lépp nekk baax baax pour koom-koomu réew mi defe naa ne kon loolu ñu ngi xaar rek ba liggéey bi pare su ko defee ñu door a def arbitrage yi ci war ba kenn ku ci nekk nga gis ci sa bopp. ñoo ngi gërëm d'abord président de la république euh, président Macky Sall ci xel. Nous sommes xel industriel yi bàyyi xel nous xel transformateur yi ne ni mu qui xel producteurs yi tey muy baykat yi aussi le bàyyee xel ñi nga xam ne industriel nga jënd pour mën ko def dëwlin mën ko def bi pour ñu jaay euh, consommateurs rakal ji tamit ñu bàyyil ko fi ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci walu wàllu euh ñu gis nak né ñaari campagne ñu romb yépp euh xajna ñëpp gis nañ ci seen bop mais huiliers yi ñi ci waron gisi seen bopp gisiwul ñoon seen bop ci campagne bi président Macky Sall ci conseil des ministres bële ñu romb mu né nañu gorgolu ren bañu am régulation dynamique bu nga xam dina may producteurs yi muy baykat yi ñu gën continuer ci exportateurs yi naam di ci transformateurs yi aussi muy huiliers yi yi ak industriels yi ñoom itamit ñu mën ci gis seen donc euh, convocation bi nga monsieur le ministre de l'Agriculture et de l' rural def na na lu nga xam ne ñu ko ci parce que dafa lu nga ne dafa ci euh, ngir ba ñu génnee ay xalaat génne ay gis-gis yu nga xam ne dana may képp ku nga xam ne da ngay yëngatu ci filière bi nga mun ci gis sa bopp. donc yaakaar naa tey bu ñu koy def comme d' accord nañ ne campagne yu paase yëpp béykat bi gis na ci boppam exportateur bi gis na ci boppam xañ na ñi ci des mooy euh, huiliers yi principalement kon xalaat yëpp war na jëm foofu pour may huiliers yi ñoom i tamit. muy ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu artisanal bi ak ñi nga xam ne ñooy industriel yi ñoom itamit campagne bi ñu jëm muy deux mille vingt et un deux mille vingt deux ñoom itam ñu mën ci gis seen bopp.